fait pour euh, Sénégal moom du groupe de la mort du groupe de la mort parce que en réalité sunu potentiel da war na def que ni ñun premier tour Coupe d'Afrique formalité la war a nekk c'est-à-dire aujourd'hui amuñu problème mu dem deuxième tour parce que am nañu expérience bi am nañu jour yi donc euh, ñeneen ñeneen ñoo war a jaaxle mais ñun Sénégal bu ñu jouer suñu valeur waruñoo jaaxle parce que vraiment le potentiel qu'on a amuñu war waruñu am problème mu dem deuxième tour coupe euh, euh, comment dire contre l'Afrique maintenant nag il faut éviter le syndrome du champion en titre parce que souvent Afrique dafa am syndrome champion en titre da ngay nekk champion en titre ñëwaat du euh, ñu éliminer la war Cameroun wane na ko Algérie wane na ko Égypte wane na ko mm-hmm. c'est-à-dire le syndrome du et syndrome boobu lan moo koy joxe mooy ñëw ak excès de confiance wala ñëw ak équipe en fin de cycle cest que souvent boo analyser lan mooy indi problème mu championnat am problème mooy excès de confiance wala nga ñëw ak benn équipe bu nga xam ne dafa nekk en fin de bi muy jël championnat bi moo wër sama moom mais après mënut woon progresser parce que joueurs yi màggatoon nañu wala joueurs yi yàggoon nañu donc bu ñu analyser loolu et on a vraiment des techniciens pour analyser loolu mën nañu ñun. mettre remettre en sunu titre jëm ko récupérer parce que on a les joueurs mm-hmm. la relève est assurée les encadreurs kenn bougewul aussi bien technique que administratif kenn bougewul donc nañu vraiment euh, daal di am confiance xam ni bu dee groupe de la mort c'est les trois autres équipes qui ont des problèmes pour se qualifier mais ñun on est au-dessus de la mêlée et il faut ñu gëm ko prouver ko sur le terrain d'accord